ci euh, réew mi ndax li ci war yëpp def nañ ko muy ci dispositif bi ba ci euh, approvisionnement bi li ñu bëggoon nag euh, bu ñu sukkandikoo ci directeur de l'élevage am nañu ko waaye fii ci ndakaaru sax gis nañu ni ba démb rek lu ëpp juróom benn fukki junni xar daal di nañ koy waññi fii ci ndakaaru ñu teewlu ci Dame Sow moom mi yore direct moom mi nekk directeur de l'élevage fi ñu toll nii ci wàccaay bi ministère de l' et des production animales ci njiital ministre bi li mu def yëpp def na ko ñu ngi ci finition yi pour préparer barab yi nga xam ne nii fa la xar yi nekk euh, fi ñu toll nii nag approvisionnement bi mooy xar yi nga xam ne dañuy dugg ci marché yi pour client yi man di ko jënd tàmbali na ñu ngi am yaakaar bu baax a baax a baax parce que ci lim bi ñu lim ci niveau national bi am nañu fi ñu toll nii cinq cent un mille six cent quatre-vingt-huit moutons kon wane na ni am nañu presque par rapport ak euh, huit cent dix mille moutons yi nga xam ne yaakaar nañ ni su tasee ci biir marché Sénégal yi tabaski bi dina jaar yoon am nañ si loo xam ne nii weesu na déjà genn wàll gi su loolu weesoo dañuy topp marché bi nga xam ne mooy marché Dakar parce que Dakar nag fi la <laughs> ñu gën a bari nekk ci benn benn barab marché Dakar boobu tamit fiñ si toll wax dëgg yàlla am nañ lu ëpp soixante mille xar juróom benn fukki junniy xar yoo xam ne lim nañu ko te xar yaa ngi continuer di ñëw euh, ñu ngi yaakaar am fi lu mat deux cent soixante mille xar mais fi mu nekk nii nag euh, fii ak juróomi fan juróom benn fan nga xam ne day des fukki fukki fan ci tabaski bi si la xar yi nag di commencé ñëw bu baree bare bare bare bëri mais niñ ko gisee nii soo ko méngaleeg daaw xel dal na si tamit lu ëpp ñeenti junni eh, xar la ñu ci foraay yu nekk ci département bu Fatick foofee tamit eh, lépp lu aju ci dispositif bi def nañu ko na mu waree ci juróom ñaari bërëb yi nga xamante ne foofu eh, la ñuy jaayee seeni xar loolee ki ñu koy wax di Ndate Diaw moom moo nekk chef service départemental bu élevage ñu teewlu ko ci micro Aminata Goudiaby fii ci département de Fatick ñu ngi am juróom ñaari marché hebdomadaire ñaax ci arrondissement bu Ndiop muy marché bu Jaxaaw ak bu Mbelakajaw ñaar ci arrondissement bu Ñaaxar muy marché bu Patar ak bu Ñaaxar ñaar ci arrondissement bu Tataguine muy marché bu Ngoye ak bu Diouroup ak benn bu nekk ci kam commune bu Fatick si route Ñaaxar bi boobu sax dimanche lañ koy def boobu itim mooy servir comme point de vente normalisé fii ci département bu Fatick marché hebdomadaire bu gën a rëy nag fii ci département bi mooy marché bu Diouroup ndax moo gën a accessible mi ngi si route nationale bi mais également moom la ñuy gis mu enregistré lu gën a bëri ci ci jur décidé nañu sax tenir benn réunion ak monsieur le préfet du département alxamis bii di ñëw fexe nuñ nu ñu xoolee liñ liñ liñ ci matuwaay yi ñu war a jël yëpp ak service yi mu concerné yëpp dinañu woo waa mairie ak police gendarmerie ak agent de sécurité et de proximité yi ak acteurs yi ci bokk yëpp suivi jur gu sew bi nekk si si département bi depuis le cinq lañ ko commencé mais actuellement ñu ngi toll si ñeenti junne ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn xar yu ñu recensé gu fanweeri ak juróom-ñaari projet yoo xam ne comité national bi sélectionné na ko yoo xam ne war nañ leen a financé juróom-ñaar fukki millions ak téeméeri junne ak ñaar fukk. ca Kaffrine lu ëpp fukki junni xar foofe teew nañ fa ba noppi ca foray bu mbir kilaan euh, mu uteeg loolu nag atuma daaw ba nga xamante ne nag lu doon lu tolloon rek ci euh, ñeenti euh, junni xar lañu fa nemmeeku woon ci jamono ji wala ci jamono joojo njëg yi nag fii ñu toll nii nag mi ngi ci diggante. digganteeg fukki junneeg juróom ba euh, jàpp euh, juróom fukki junni ñu teewlu ci reportage bi ñu ci Omar Ndiaye daal di defal la. daralu Ndékilaan bokk ci daral yi ñu gën a ràññee ci jëndum xar rawatina nag tabaski gi ñu dëgmal mu mel ni xar yi tàmbali na wàcc fi ci diwaan bi. bu ñu sukkandikoo ci Gagnan ba nekk adjoint président daral bu Ndékilaan. xar yi presque waa Mali ñoo ngi fi naar naari Mauritanie ñoo ngi fi. poli Mali ñoo ngi fii poli Mauritanie ñoo ngi fii poli Sénégal ñoo ngi fii ak naari Sénégal ñoo ngi fii yëpp tàmbali nañu commencé ni mu commencé ni xar xar dana doy njëg li nag tàmbalee ci fukki junni ak juróom jàpp juróom fukki junni bu ñu sukkandikoo ci ñaar ak jeng éleveur prix bi ay cent quatre-vingt-dix quatre-vingt cent dix cent we yooyu daal quatre-vingt nit ku ne fu fu mu toll rek bu ñëwee fii ci njegam boo defee cent cinquante mille da nga am si façon kar yi nga tiim nii deux cent mille kar yu yar yi wala deux cent cinquante mel ne ren xel mënees na dal bu ñu sukkandikoo ci El Hadji Moussa Ka jaaykatu xar la ci diwaan bi li waaw kar yi am nañu ci yaakaar koolee heure bi daaw ñun suñu bët li nekk fi ren mu ëpp heure bi daaw la prix bi gën a cher ndax soo koolee dimanche tey bi su dimanche bi delsee kar yëpp dañu déplacé mbir ka ñu dem ñu tasaaru ci biir réew mi. waaye éleveurs yi jóge Mauritanie nag li ñu jàmbat mooy seeraayu transport bi Seydina Soudiwouly Aidara moom moo lay jóge Mauritanie indi fi ay xar. wallahi wa anta xar seer na ci Mauritanie seer na ci Mali. Mauritanie jaar naa ci Mali xaay ak Sindra. transport dafa seer. Sindra ak fi demeer ak fi ñaar fukki junni frère foofu ma ngi Timali ñoom bi barakallah le gouvernement Sénégal barakallah amul problème fi mu toll nii nag ci daru Birkelane lu toll ak juróom-ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukki xar wàcceegum nañ wute lool ak daaw ci waxtu wi ñeenti junni ak juróomi téeméer rek moo fi wàccoon ñuy xaare ni nag yeneen xar yi nga xam ne ñoo jigee boori xel xom yëpp nag war a wutal si fi ci daralu mbirkilaan ci njëg li tàmbalee ci fukki junni ak juróom jàpp juróom fukki junni mbirkilaan Omar Ndiaye RFM Omar Ndiaye ca Tambacounda foofe nag njëgu xar yi dafa aju rek ci euh, qualité bi maanaam na xar ba toll ak fa ñu ko euh, yare ci euh, yoonu national ci route national bi foofu mën nañ fa amee xar yi li ko dalee ñaar fukki junneek ñeent ba jàpp juróom-ñetti fukki junni waaye bu ñu sukkandikoo si suñu ndaw lañu fa toogal xar yi nag mi ngi gën a yombe ca forêt bu Tambacounda ñu teewlu ci Moussa Omar Gueye ci ab reportage. ci waajtaayal tabaski bi dañuy seetlu ni ci route nationale bi sax bare na ay bërëb yoo xam ni dañ koy mujj daal daal di def ay béréb yoo xam ni dañ fay jaay xar waaye nag xar yooyu yi ci gën a bëri ay kuy yu mag la mu nekk ay xar yoo xam ni ay xaru raas la wala yu ni mel njëg la gën jaa fanweeri junni la waaye mën na dem ba jege luy toll ci téeméeri junni waaye itam ba tey ñu gis nag bu fekkente ni ci daral yi la moo xam daral bu mag bi nekk ci yoonu Bakel bi la wala daral secondaire bi nekk fi nga xam ne mooy ci quartier liberté njëg yi ñooy gën a yemamaay dana dem ci fukk ñaari junni juróom benn fukki junni ñi nga xam ne ñoom ñooy borom kër yi ñoom bëgg nañu daal ñu wut ay pexe ci njëgu xar yi bu naama kante waaw njëgu xar yi xaw na jéggi dayo nag diggante fanweeri junni ba juróom-ñaari fukki junni dëkk mel ni Tambacounda nga xam ni réew yi ko seq ñoom ñëpp dañuy indi xar ni xar yi ñëwul ci ak doole moo tax mais buñ demee ba ci kanam mun na am xar yi ñëw mais ak nu mu muntu doon dañu war a def nguur gi ci lu mu war a taxaw réew ñi nga xam dañoo xaw a ndóol am na yeneen itti ak yeneen soxla te lii dafa nekk sunna ñun surtout jullit yi éleveurs yi en tout cas pour que ñu egg ci autosuffisance en bétail fixer définitivement benn njëg boo xam ni kenn mënu ko dépassé. mbir mi day dem ba finalement ku nekk da ngay def lu la nekk. bare na itam ay borom kër yoo xam ni dañuy jóge ci Tamba di dem ci luuma yi ci Koccaar yi ci Missira ci Bala ci Sinthiou Malem ak yeneen bërëb yu mel noonu ngir nag wut fa ay kuy ay xar yu baax fekk njëg la daanaka mooy gën a jàppandi. démb rek ñu ngi ko doon waxtaanee mu am ñeenti catégorie xar yoo xamante ne nag des na koy euh, tabaske imaam Moctar Ndiaye bu grande mosquée bu Liberté 6 di dellu si ci yeneen i melokaan yoo xamante ne léeg nga fekk ko ci xar loole nag di neenal sab euh, tabaski ñu teewlu ko ci. dañuy gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bi nu jàngoon démb dafa ni woon am na ñeenti xeeti ayib yoo xam ne boo ko gàtt gi amee gàtt goo kenn mënatu ko jëfandikoo ci tabaski mooy xar mi pat xar nga xam ne dafa feebar xar mi nga xam ne dafay sóox tànk bi dafa laggi ak mi nga xam ne dafa yooy léegi nag ci xadis boobu ci la ulama u fiq yi sukkandiku ba daana ko génn ci yeneen juróom-ñeenti yoo xam ne yépp bu nekkee ci gàtt gàtt goo kenn mënu ko jëfandikoo ci wàllu tabaski mooy xar moo xam ne dafa silmaxa ñaareel ba mooy xar moo xam ne gémmiñ gi dafa xeeñ dafa am jàngoro gémmin mauvaise haleine ñetteel ba muy xar moo xam ne daanaka mënul wax mënul yooxu mënul mbee walla dafa mën nañu wax dafa lu gàtt goo xam daal dafa lu du yooxu moo xam euh, xar la moo xam euh, euh, bëy la moo xam nag la bu fekkee daal moom mënul yooxu kenn mënu ko jëfandikoo ci wàllu tabaski ñeenteel ba mooy xar moo xam ne dafa jóge ci wàllu métissage daanaka croisement la xëy na këkk tëbu rabu àll la loolu tamit kenn mënu ko jëfandikoo ci wàllu tabaski juróomeel ba mooy xar moo xam ne wala gàtt goo xam ne dafay nàcc na ci lu bëri di tuur deret deret di génn ci moom rawat na ci wàllu nopp yi wala ci wàllu euh, béjjén yi wala sax ci wàllu geen gi bu fekkee dafay nag ci lu bëri loolu kenn mënu ko jëfandikoo ci wàllu tabaski bokk na ca ba tey tamit gàtt goo xam ne dafa am jaare biir bi day daw wala gàtt goo xam ne bijjén bi dafa damm wala nopp bi damm wala geen gi daal di kët te yooyu ñett sax bu fekkee geen gi la wala nopp yi wala béjjén bi bu fekkee la ci kët mooy lu ëpp ceer bi moo dem boobaa kenn mënu su ko jëfandikoo tabaski kon nag war nañu bàyyi xel ci xar yu nu mel bu fekkee dañuy ñuy jënd suñu tabaski incha allah. fi la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ñu jagleel lii di tabaski gi lee di leen jaajëfal ci teewlu bi ak di teewlu ay programme rajo Futur Média di jaajëfal itamit équipe technique beek digital bi di jaajëfal rédaction bu RFM bi yëpp neskis seeni avisé communiqué ak soxna Aminata Ndaw